ci juróom ñaareelu jigéen bi moom mu war ñoo leeral ana lan mooy melokaanu borom këram moom it mu ne yaa Aïcha radiyallahu anha zawji ayaaya aw gayaaya tabaqa kullu daa lahu daa زوجي عيايا أو غيايا تبقى كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك مم سخن سنينة يا عائشة رضي الله عنها زوجي عيايا ما سمجكر كتخت waaye xayaayaa it ku dof la te ñaari baat yooyu boo boolee benn la xayaayaa mooy tëxit xayaayaa mooy ak ndof nga xam ne li muy jàpp mënta bari mu teg ci tabaqa sama jëkkër daal ku sàggan la mënta comprendre wax soo ko piisee xamu ko soo ko woowee xamu ko soo bindee xamut moom daal loo koy wax dangay tas lépp mu doog a jeex yal nañu yàlla musal ci góor gu mel noonu mu ne kullu daa in lahu bépp ayib bu bon bu nekk ci nit mi ngi ci sama jëkkër yàlla nañ ci yàlla musal nee na kullu daa in lahu daa bépp jikko ju bon lépp lu ñuy bañ rekk mu ngi ci sama jëkkër soo wëree ci moom fen di ko ci fekk soo wëree ci moom wor di nga ko ci fekk soo wëree ci moom nay di ko ci fekk soo wëree ci moom soxor di nga ko ci fekk soo wëree ci looy wër ci moom ci lu bon rek da nga fekk moom mooy poubelle bi mbon nekk yal na yàlla musal ñu ci góor gu mel noonu mu teg ci na nag moo xam sajjaka aw fallak aw jamaa kullan lak mu ne sama jëkkër xamut dara ñaari baat yu mu wax rek sajjak génne sa dret pes la wala mu kurpeñ la wala mu bëmëx la wala mu jël bang dóor la ko moom daal dóor xamu ci dara lu mu jot rek sànni la ko mu ne aw fallak wala sax mu damm sa yax mooy jël bang di dóoraate wala yenu dóor ci suuf wala bëmëx mu dal ci miir bi wala jël boucle ceinture wala jël yat nee na moom yoonam newul ci loolu sajjaka aw fallaka moo xam gaañ na la walla dàmm na la yëggu ci dara wala sax mu ne aw jamaa kullan lak mën na sax nag ci ndofam àgg na ci mu boole yépp mën na laa dóor gaañ la damm la dóor la bañ di la toggal xewar ah mbokk yi góor googu du góor gu baax yal nañ ci yàlla musal mbokk yi dóor góor gu nekk warnako daw ndax shaytané da ci laxat gis nga alquran bi ne wadribuhunna taxul yonent bi appliquer ko ndax yonent bi lam wax rek wadribuhunna darban ghayr mubarrah comme niko alquran waxé su ngeen mënta ñàkk do dóori bu mu gaañ na doon dóori nobel dóoru mbëggeel mooy darbul muhib jigéen boo ko dóoree dóori mbëggeel du mer te dana dellu gannaaw mooy yeddu ko xoola ayuba alayhi salaam bi mu wëree jabar ji gisu ko mu ne su ñëwee dinaa ko dóor téeméeri yar nan la ko dóoree borom bi daf ko ne rek wa xuz bi yadika dirsan fadrib bihi wala taxnat jëlal ay ñax ñaxu salguf nga wuññi ci ba mu nekk sans nga jël ko xoolal soo ko koy dóor na bu ànd ak reetaan boroom xam-xam yi ñu ne yar bi ñuy dóoree jigéen na nekk yaru mbëggeel mu mel ni yar bu tolloog socc nga xam ni jigéen ji bu amee xel dina yëg ni ku daan wax ak yow bëgg la sopp la su demee su demee ba yëkkati dara di ko jëme sa kaw yow jigéen ji war ngaa xam ni kat def nga lu ëpp kon dellu ginnaaw jot na nga dellu gannaaw arrière بن بيسي يونتبي خينا ميرلول وصحابين لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكي زوجه ليس أولئك بخياركم من أمنا جيجين ينيو سمكر فك سمي سخنا وخلن سين نقر matna jurom ñaar fukk jigen kenn ku nekk mi ngi joy door yuñ ko door waye li ci daw yaram moy li ci yonent bi tek neena laysa ulaika bi khiyarikum ñooñu dóor seen jabar gënuñ ci xeet bi gënuñ ci yéen kon dafa bëgg wax ni dóoraate góor guy dóore gënoo yaa Aïcha radiyallahu anha nettali na benn guddeem moog yonante bi lu reelu bu daw yaram yaa ay ne ala uhaddithukum anni wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam innahu lama kana fi laylati hiya li jaa fa fataha al albaaba ruwaydan ruwayda wa masha ruwaydan ruwayda ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا فما هو إلا ريثما وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا حتى قام رويدا رويدا أخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق رويدا رويدا فتصنعت إذاري وانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاث مرات ويخفضها ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فأول ما دخلت البيت دخل, دخل فأول ما دخلت البيت دخلت تحت اللحاف فقال ما لك يا عائش يا رابية الله أكبر حديث بو خمني خينا تي رجلا كيفري مي حديث بو muy xadis يا daw benn bis ci sama ay yonent bi dafay dugg sama néeg yonent bu daan ñëw ci neegu jigéen guddi du yëngatu yëngatu bu bari nee na maa ngi tëdd yonent bi foog ni damay nelaw nee na yonent bi ubbi bunt bi ndal fa fataxal allahu akbar ndaw yaatu mu ubbi bunt bi ndànk di yoot nee na mu dox ndànk bi mu doxee ndànk toog ci lal bi ndànk tëdd ndànk bi mu tëddee ndànk ndeysaan mel ni ku ma bañ a yee tëdd tuuti rek jógaat ndànk jógu yoot boo xamante ni bañ ma yëkkate man maa ngi koy xool nee na mu jël ay dàllam ndànk sol ko ndànk dox di yoot di temp ndànk ubbi bunt bi génn dem manit ne ma muri sama mbàjj defaru di ko yoot topp ko ndànk manit ndax dama foogoon ni daf ma fiy bàyyi dem ci beneen jigéen nee na ba mu ko defee nag ma dox topp ci ginnaawam di yoot ndànk bi may yoot ndànk yonent bi dox dox ba dem ba baqi te baqi mooy armée bi jullit ñi nga xamante ni moo ne ca Madina ma di ko topp ba seen yonent bi taxaw ci armée li yëkkati loxoom wàcce ko di ñaan yëkkatiwaat loxoom wàcce ko yëkkatiwaat loxoom wàcce ko ba mu ko defee ba pare ñaan na dégguma la muy ñaan ndax damay làqatu mu wëlbatiku di ñibbisi nag ma séen ko manit bi ma ko séenee mu jël yoon bii ma jël yoon bee muy dox may dox ba ci yàgg mu waaxu ma waaxu mu daw ma daw ba ci yàgg yonent bi dox ndànk manit ma dox waaxu mu njëkk koo àgg ca kër gi nag bi ma duggee sama néeg tëdd sàngu mel ni ku jógul woon waye lima ma sàng yépp maa ngi nooyi yonent bi mu ñëwee na waaw yow aïssa yow lu xew ba ngay sik yow aïssa lu xew ba ngay sik lu muy tekki moy yonent bi xamoon na ni aïssa dafa top ci ginnawam yermandem bu yaatu motax mu bayiko mu def ay gestam kon góor ñi nañu jël melokan bobu allahu akbar wa innaka la ala xuluqin azim ku melni yonent bi mbokk yi amul wallahi koku benn góor la benen góor dootul melni mom kon nañ leen jéem a roy jikkoom yi góor day xam ba góor day gis lu mu war a régler ba ko góor day am yërmande yal na yàlla jéggal ñu jéggal leen suñuy jabar yal na ñu mel ni yaay Aïcha waaye ñu nit yal na ñu mel ni yonent bi ci ay jikko gaa mënuñoo am lépp waaye mën nañ koo roy wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wallahi maa ngi sopp mbokk yépp di leen yëg ni fu ma toll maa ngi leen di ñaanal ñaanal leen ma sopp bi ngeen am ci man bu ko raw am naa ko ci yéen wallahi loolu yàlla rek mooy suma seede yowmal qiyam ak yéen yal nañu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ñu barke defal leen ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu